alors euh, euh, ñëwaat nañu ci euh, plateau bi nous reste une seule chronique mooy bu doyen Mademba Ramata Dia comme mercredi gu jot ànd ceeg Salma Salma bàyyi la ak sa nijaay préféré. oui nijaay préféré ma koy ziaraat bu baax a baax. moom suñ ko gisul day daf ñuy manqué. ñu mhm. mhm. am mbégte di jàkkaarloog moom saa su nekk donc je pense que waxtaan nañ ci sànq ak Seydina Oumar Ba mbirum concours général bi niki ki démb gis nañ comment ça s'est passé mu amoon nag 112 distinctions dont 64 prix les filles nag. daal di dominer bu baax a ci podium bi ñun ñi mhm. nga xamante ñoo di jigéen ñi ñu koy rafetlu bu baax a baax mais liñ mhm. ciy gën a rafetlu aussi moo di bëri na ay voilées donc euh, ay signes la yoo xamante ni mhm. euh, tey jii nañ ko mën nañ ko wax euh, d'autant plus que le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi wax que en France xëy na dañ leen fay xoqatal wala di leen doya daal buñ leen permettre ñu mën a exprimer wu voilé wu waay jàng mais fii pourquoi pas ne pas le faire ndax ku Euh, euh, débat amoon 88 distinctions donc xëy na euh, doyen dañ lay bàyyi rek nga dikk ci concours général bu bac naka nga gisee fi ni mu demee. concours bi vraiment am na solo. Mhm. parce que yàgg nañ ko def ci réew mi di sargal ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo góorgóorlu. Mhm. ba am lu ñu tuddee l' excellence. Mhm. parce que njàng tamit excellence daf cee baax. day doon motivation pour ñeneen ñi. et puis boo leen sargalee ni tu leur donnes un exemple da nga leen di doo joxe exemple parce que keneen ku toogoon di seetaan dina bëgg mel ni ñoom ëllëg ainsi de suite donc ça veut dire que c'est une bonne chose bu ñuy def ni léegi nag il appartient maintenant aux autres écoles yi nga xam ne yàlla def parce que apparemment tu vois les mêmes écoles mhm. ñeneen ñoo ci greffé ñu bees mais c'est le même ay prytanée militaire ñoo ñooy jël parce que bien vrai qu'ils sont dans des extra extraordinaires ay Mariama Ba mhm. parce que kii mais nañu fexe aussi ba public bi ak léegi lycée kii bi nekk Pikine mu tudd lycée euh, Canada lycée de Pikine non lycée du bu siiw la sax te mu nekk Guédiawaye ah lycée Limamoulaye waaw Limamoulaye ñoom à l'époque ils avaient de bonnes kii mhm. léegi nag au aussi des kii il faudrait quand même qu'on revienne à, à, à, primer les enseignants. Mhm. Parce que Serigne Mbaye Thiam commencé woon na ko on parlait du meilleur enseignant. Mhm. dañ ko doon jël sargal ko jox ko xaalis bu bari vingt million lañ leen doon jox. Mhm. le meilleur enseignant. def nañ ko deux fois primé ci ñaari nit mais bi Serigne Mbaye Thiam jógee ministère boobu ba léegi ñoom defuñu ko. te vraiment enseignants yi aussi dañu am rôle bu mag bu ñuy gis société te boo xoolee sax ils ne sont pas très souvent primés. Mhm. kenn du leen sargal ils sont très maltraités leen mhm. aussi mhm. donc loolu sax damay fàttaliku li Mariama Ba bindoon dans son roman une si longue lettre que j'aime bien mu ne les enseignants de la maternelle à l'élément à l'université conçu une armée noble aux exploits quotidiens jamais chantés jamais décorés mm-hmm. cette armée sans uniforme rutilante plante partout le drapeau de la vertu et du savoir ah donc ñooñu ñu jara sargal lañ au même moment où ñuy sargal le concours général il faudrait que ñu fasse revenir au au prix du meilleur enseignant ñu indiwaat ko mm-hmm. di leen sargal parce que aussi daf ci baax mm. ki lay tàggat te ku nekk fii am dara tu le dois à des enseignants. parce que ci loxo enseignant donc nañ leen gën a jox leen seen njëkk. jox leen seen gëdd gën leen sargal. que revenir au au prix du meilleur enseignant institué par Macky Sall deux éditions lañ ci def depuis lors wax dëgg yàlla. amatul quoi donc. Oui. mais en tout cas alors euh, par l'occasion aussi. Mm-hmm. ñu féliciter les fii mm-hmm. mm-hmm. parce que dans notre société. la fille était réduite aux tâches ménagères bu ñu demee nag ba partout hein, même boo demee à l'école dans les dans les compositions ak partout ak concours les filles brillent quoi donc ça c'est réconfortant ñaanal leen yàlla xale yi suñu boroom dimbali bañ sargal leen dem yàlla defal leen ñu am un avenir radieux boo xam ne ils vont être l'élite de demain quoi. Mhm. incha allah euh, de demain. bi nga xamante ne moom la ñu euh, wax sans que aussi on en parlait. Mhm. que d'habitude bu ñu euh, primé bu ñu leen primé ci concours général bi rek dañ leen di jëndal billet jox leen tout ce qui va avec yóbbu leen à l'extérieur mais ren mu mel ni daa doon a changé dañ leen di bàyyi fii ci biir. waaw c'est que nag cette fois-ci on a des écoles préparatoires. de mhm. qualité. yoo xam ne yii am na donc ça veut dire que ñooñu war nañ mënta parce que loolu mooy sa dëkk war nga fi def ay structure yoo xam ne du jar ñuy jàng parce que xaalis bi ngay jël di ko dépenser pour ñoom ñuy dem bitim réew mais bu ñu defee ay infrastructure yu de qualité def école yu baax léegi les grandes écoles préparatoires ñu ngi fi te booy yëpp ñu ci bëri foofu lañ la ñoom mhm. donc ça leur permet on a une école qui a fait semelle l'école polytechnique de Thiès ah ouais. def na lu nekk tous les grands ingénieurs ont été formés là-bas. Mhm. donc dañu nañu gën a góorgóorlu ci loolu defal ay école de qualité ay école d'excellence mhm. surtout dans le domaine du supérieur ensuite wut aussi des enseignants de parce que ne peut pas produire des écoles de qualité te à l'université tu n'as tu as 75 pour cent du personnel constitué de vacataires mhm. maanaam ay journaliers lañu boo liggéey te fi mu toll nii on le droit des arriérés de salaire bon Abdourahmane Diouf di wax ne il veut recruter 500 enseignants c'est une idée noble mais au contact du réel et de l'expérience cela me paraît extrêmement difficile parce que en douze ans Macky en a recruté 400 moom en en un an il nous propose 500 l'essentiel nous recruter quoi oui. mais pas des ambitions très folles quand même. Mm. ok alors en ce qui concerne euh, discipline yi on, on constate que 32 disciplines la ñu retenir ci concours général bi. mais est-ce que jotul ñu xoolaat li nga xamante ne moom la ñuy jàngale xool matière yi nga xamante ne moom la ñuy jàngale parce que nag dañuy jël xale yi buure leen de discipline ak ay cours yoo xamante ni daanaka buñ ci paree rek pare nañ ci. dañ leen ay problème rek on a niveau des enseignants. pour voir la courbe des examens mais on a retenu ceci mooy les années de crise ce sont les années où les résultats les maires uh-huh. gars yi dañuy grève quatre mois après def ay résultats extra extraordinaire uh-huh. quest cela veut dire cela veut dire saa ñu grève uh-huh. on réajuste le programme wàññi ko après donc sa ça dire que li leen di jàng li ci ëpp amulu leen njariñ li ci ëpp aussi da leen di surchargé mhm. dañ leen di surchargé boo xoolee année Covid bi mhm. Covid bi on a fair le meilleur résultat du Sénégal ah avec oui. l'année de la Covid ah pourquoi ça parce que dañu wàññi programme bi presque de moitié mhm. léegi booy dañu ils se sont excellés parce que soxla wuñu ki dañu soxla benn base boo xam ne ak kii pour ëllëg parce que yow miy def lettre tu n'as pas besoin yeneen affaire yu bëri yëpp ñu lay sonal. ainsi de suite wax naa ko fi sànq loolu mooy problème bi. Mhm. parce que le programme est trop vaste. saturé trop bëri l'élève apprend beaucoup. Mhm. gis nga par rapport à la France France on évalue. Mhm. mais fii on éprouve. France dañ lay jàngal lu ndaw évoluer ci lu ñu mais fii dañ lay jox ay kii di la éprouver di la sonnal ci yenn sonnal yi xam nga ma mhm. mais yooyu yëpp mais enseignement supérieur sax am na ñu koy def doyen parce que léegi booy seet bu fekkente da nga nekk à la recherche euh, à la recherche d'un diplôme master wala licence sax da gis ne que léegi système bi lañ jël module par module tu termines module bi ñuy attaqué module bële à la fin avec huit modules te xamoon na bi du mhm. du du heure yu bëri mhm. boo demee ay en Europe wala au Japon tout une heure de temps dañu jël pause mhm. par nit ki dafa am lu mu attan ak lu mu kii mhm. sans compter aussi les conditions environnementales nañu fexe ba aussi école yi gën a doon attrayante école da nga fa war a ñëw di enjoy li xale yi di wax di ñëw di bëgg yàkkamte ñëw école mais école boo xam ne day triste waaw taa robinet amoon ndox am problème toilette mm. ainsi de suite surtout des filles des filles qui ont xam nga la morphologie d'une fille est différente de celle d'un garçon waaw hygiène bi yooyu yëpp donc yooyu yëpp environnement scolaire bi aussi nañ ci veiller gën ci góorgóorlu mm-hmm. parce que c'est important mm-hmm. en tout cas il un curriculum qui est en train d'être fait ñu ngi defaat ñu ngi revoir programme bi depuis daaw rek ñu ngi ciy travailler certainement d'ici l'année prochaine ça mm-hmm. va être opérationnel pour le grand bonheur des des enfants et de leurs parents. <laughs> parce que xale yi ku leen jurul aussi li woykat ba wax rek yërëm leen. yërëm leen dama leen di xool ba si ak ma yërëm leen quoi. Mm, mu ngoog alors je pense que mën nañoo euh, daal di dikk nag ci déclaration de bi nga xamante ni. Mm-hmm. jiital réew mi euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme j'aime l'appeler daal dina koy def nag juróon coow loolu mais finalement def na ko mais ku ci nekk ak ni nga ko jàngatee. waaw xam nga déclaration patrimoine. dafa nekk ci constitution bi article 37 ki ko institué mooy ku ñuy wax Abdoulaye Wade. Mhm. en 2001 le président Macky Sall renforcé ko en 2016 donc ñaar ñi ko ji jiitu Abdoulaye ak kii def nañ déclaration de problème mhm. mais léegi lan mooy déclaration de problème déclaration de problème mooy avant dañ ko obligation la pour le président de la République. léegi nag da nga ko war a def parce que dañoo bëgg jàpp ne dañoo war a leeral léegi nag boo ñëwee ci nguur gi xam nga nguur dafa neex ak ay privilège ak ay avantage ak possibilité nga mën a am pour sànq xaalis wala defaru yooyu yëpp ñu bëgg a xam nag bi ngay ñëw lan nga am ci wàllu alal ak ci wàllu bien léegi nag jotoon na ko def bi mu nekkee candidat mais boobu c'était une déclaration officieuse déclaration bi voilà mu ngi koy soog a def mi ngi ko def le 2 juillet. parce que trois mois après ton élection da nga ko war def 2 avril 2 mai 2 juin 2 donc ça fait trois mois mu def ko léegi nag le conseil constitutionnel dafa am obligation moom tamit rendre publique la déclaration du président de la république. léegi loolu la def le vingt cinq juillet. bi nga ko rendre publique nag ñun am na luñ ci luñ ci xool nañ ko. léegi gis nañ ne. salaire du président de la république paradoxalement quatre millions la huit cent loolu moom man bett na ñu bëri parce que Ablaye Wade Macky Sall Abdou Diouf nekkatuñu en fonction te ils ont chaque mois neuf millions. neuf millions oui. non, neuf millions certains DG même en plus de quatre millions. am na cinq millions am na ñu am DG dix million mhm. am na ñu am quinze millions sax au Sénégal. Mhm. certains DG. Mhm. bariwul na quoi mais am nañ quinze millions par mois par rapport à leur structure. yi ñuy gérer donc euh, bon mais c'est pas grave l'essentiel moom comme que dina ci mën a génn yaakaar naa ko amul problème léegi aussi xool nañu bien yi. avant bien yi aussi xool nañu compte bancaire yi. am na ñaari compte banquer benn bi ci xaalis la mu fa denc. million millions sept cent la. beneen bi mu ngi fa dañ si millions et quelque léegi nag amee na aussi ñaari prêt prêt yi mu ngi koy fay benn bi dese na six million quatre beneen bi dese na vingt quatre millions quatre léegi ci wàllu biens yi wax nañ ne am na benn oto occasion lu ko jënde Ford depuis deux mille deux am na aussi benn terrain bu nekk fële 4 hectares 46 e 44 hectares et quelques. Mhm. bon foofu defagum na ci mu ngi ko jëndee woon 13 euh, millions mais def na ci investir na ci 29 million pour le moment. Mhm. sans compter aussi kër gi mu am Mermoz. nee nañu valeur benal bi waaw non kooku kii moo ko may syndicat bi. syndicat bu bu bu impôt domaine ñoo jox quoi seen attribution syndicat du may sax quoi mais syndicat comme syndicat enseignant syndicat port autonome et waaw waaw waaw waaw li mu fa non loolu ci vingt neuf millions yi ci beneen terrain la 19 millions. Mhm. waaw fii bi ñu ko kiiwee. dañ ko évaluer ñu ne 140 millions la. waaw sans compter aussi ak leneen lim fi def. donc daal bi ñu jàppee xayma lépp on parle de 300 millions yoo xam ne moom la am comme bien dëgg naa lu ñuy wax man leen waaw ki nga xam ne moo fi jiitu xool leen li mu déclaré woon 8 milliards. ak koo xam ne ñu ngi wax ay trois cent millions la am mais bu ñu taxawee ci yi rek déjà euh, par exemple oto yi Sall bi muy soog a toog président dafa ne woon am na trente cinq oto lan la le président Bassirou Diomaye Faye wax ñaari oto la yor. waaw mais fii comparé à Sall bokkoon na ci biens yi nga xamante ni moom la déclaré woon benn kër gu nekk Houston. Houston laa wax de. Hmm. jamono jooju noonu boobu il n'était président dañ ko doon soog a fal. Hmm. donc si bu ñuy def comparaison dans le pouvoir aussi quoi. man de bon bu ñuy comparer mu mënuñu leen comparer. Mm. parce que ne serait que. le terrain de, du président Macky Sall à à mm. l'aéroport ça fait deux milliards deux milliards li ñu wax Diomaye terrain bi kese bi nekk fii aéroport deux milliards la donc ça veut dire que du du c'est pas comparable. Mm-hmm. en tout cas moom ñaari devancier mi c'est pas.

premier ministre bi def na yeneen ministres yi aussi def na ak DG yi nga xam ne dañu war a def ak président de l'Assemblée nationale président du seize conseil économique social et environnemental le premier casseur de l'assemblée dafa def dafa déclaration de patrimoine ainsi de suite nañ fexe ba man fait je trouve pas trop trop intéressante li nga xam ne moom déclaration de patrimoine bi du moment que tey booy dugg mën nañoo xam li nga li nga li indi mm-hmm. mais booy génn kenn du xam parce que Macky Sall ba tey jii xamuñu lan la yóbbaale Adja tu as tu as posé du doigt la véritable problématique de cette déclaration, la mm-hmm. pertinence. Mmh. parce que mënuñu comprendre yow boo dugg si en tant que président de la république on te demande de nga def ko conseil constitutionnel effectivement mais conseil constitutionnel waa rendre ça publique mais booy génn même loo fa dëpp loo fa wax sax ak loo bind ñoom ils ne rendent pas public ban njëriñ la am la logique voudrait que action de départ bi mhm. bi wax ne fii nga léegi boo demee ba fin bi ñun sénégalais bi ak l'opinion publique ñu mën a xam ne diggante bi lii nga fi am ak lii ak dafa yokk wala danga nga kii ainsi de mais malheureusement loolu am donc ça c'est a rectifier am na aussi loo xam ne aussi il faut ñu xoolaat ko par exemple le président du HCCT moom ne fait pas de déclaration de patrimoine waaw institution bu mag boole ko aussi le président du conseil constitutionnel ñooñu institution yu mag la le président du cours et tribunaux institution yu mag la le président de la cour de comptes institution mais ñoo ñëpp duñ def décret donc il y des insuffisances par rapport à ce décret léegi nag bu ñu ko mënoon corriger ce serait une bonne chose si pour ñun loolu mooy su mooy intérêt ñi koy def mooy intérêt aussi askan wi parce que mënuñu comprendre bi ngay ñëw nga ne ñu am nga di dem rek def ni ñu bay bay war nañu xam diggante bi huit milliards yow ndax da nga ko ful wala da nga ko multiplier par dix wala da nga ko moins un ainsi de suite c'est c'est droit le plus élémentaire la droit à la transparence à à la bonne gouvernance en tout cas foofu daal am na rëq yoo xam ne war nañ ko mën a defar léegi nag yooyu buñ ko defee daal dina baax quoi insuffisance yooyu daal buñ ko mënee corriger ce serait une bonne chose waaw ñoom a mën la mais nag à rappeler warul yam rek comme ni nga ko waxee ci président bi ministre yi DG yi xool seen niveau de vie naka la ñuy dundee mais ñu ci bëri aussi doyen pour nga xoolal leen wala nga xaymaal leen dina jafe parce que seen xaalis duñ ko denc seen kër gisoon nañ fi en député boo xamante ne neen dañ ko sàccoon 9 millions de francs CFA chez lui maanaam moom xaalisam gi ñu sàccoon ci këram moo ëpp patrimoine nu président de la république bi nga xamante ne tey moom la moom la déclaré donc yooyu aussi pour nga mën leen a lijjanti est-ce que dina nekk yomb. bu dee am nga ci Pastef parce que gis nga une volonté si elle n'est pas extériorisée aurait été comme si elle n'avait jamais existé mhm. boo ko bëggee rek qui peut peut qui mhm. mhm. boo bëggee rek di ko def mais da koy jaral nag parce que bu la ci kenn na Diomaye fi mu toll ni président il subit tellement de pression parce que am na ñoo xam ne c'est des lobbies qui sont très puissants am ñoo xam ne aussi dañoo am ay intérêt partout mhm. donc yooyu yëpp il faut na mais man yaakaar naa ne ñii li ñu dëkku deux mille vingt et ba léegi mhm. seen carapace bi fi mu toll nii wax dëgg yàlla man ils sont tellement résilients mhm. ba yaakaar naa ne daal dinañ dem ba ci cëppaandaw ga parce que démb rek avant-hier vous avez entendu xaw ma ndax dëgg le ministre de la justice nee na affaire Covid bi mu réglé wu. waaw parce que doon recevoir ay kii donc ah. ça veut dire que il y a des choses qui sont entre. léegi rek. ma ne ko ka doon porté plainte mbaa dañuy waaj a jublu ci mbiram. mbiram. ah en tout cas ce qui est daal Covid bi moom. Mhm. fan yi di ñëw di ngeen dégg lu kii parce que munu munuñu xam nga subtiliser le bien de la collectivité. Mhm. dafa mel ni nga def un crime contre l'humanité quoi donc un crime nag il mérite d'être puni. maa la ko wax ça moom c'est sûr mm-hmm. en tout cas doyen Mademba Ramata Dia c'est toujours un plaisir dalal la ci plateau bi. merci ma partagé benn affaire bu ndaw rek. oui parce que dama tas ak dem benn xale mu ne ma jaayo aas ma ne ko xam naa nag ma jaawale de mu ne ma déedéet jaawale ma ma ne ko mu ne ma yaay nijaayu sa. Aïcha ak Salma <laughs> ma ne ko ah booy yow tey très inspiré quoi. bilaay doon nga dëgg waaw nijaay Asma de. ah du du toujours di nekk ak yéen quoi. wallaay wallaay il est trop inspiré nijaay As As comme euh, Aïcha et Salma. Uh-huh. alors euh, merci euh, doyen son nijaay préféré on vous donne rendez-vous semaine.